kaay ma wax la ñaari baat mhm. defar mhm. na ñu ngi doon root <laughs> ñu defar mooy bunt bi fi ñu war a dajee pour waaye boo xasee ba dajee ba da ngay xam ne fii ku baax ah, kon kon eh, kon eh, attends attends attends man je comprends pas def leen naan li ñuy defar kon du ndaw bi la ñuy dugalaat ci biir replacer ko mu nekkaat fa mel ni genre liquide boobu kon dañuy dañuy tëj dañuy ñaw dañuy tëj ah, merci loolu rek la ñuy defaraat teg ko mais terewul loolu bu ñu demee ba dindi ko loolu bu ñu demee ba dindi ko yaawa am na ñoo xam te ne nag léegi kaay ma wax gis na ñoo xam ne dematuñu si kii de dafa am ay produits yu ñuy jaay ak pour nga tëjoog nga yooyu loolu yëpp loolu yëpp am na ci dëkk bi na fi comme dañoo teg thème bi rek ñu def ci moyen de lan 12 ans la def wala 18 ans mm. nañ ko waxtaane <laughs> mm. yooyu yëpp am na yoo xam ne dañ lay seere yooyu mais dama ne góor ñi dafuñu xamee nañ ki nga xam ne da koo judduwaale ki nga xam ne dañ koo falsifié ki nga xam ne da koo judduwaale dina ko toog premier jour ba na muy méttee deuxième jour baa ko gën a métti jaar nañ ci premier jour bi na muy méttee deuxième jour baa koy gën a métti ndax day fekk cicatrice bu fa nekk la mu bees tàkk day gën a métti mais ku ñu falsifié tey suba boo xëyee da ngeen di ambiance da ngeen di lan ambiance <laughs> ay ami ñëwal balaa may jox man li ma li ma doon li ma li ma si bëggoon dolli mooy que xam nga euh, sànq ñoo ngi doon wax waaw Sénégal dañoo am ay valeurs suñuy tradition et comme si en fait ñun li ñuy wax comme si en fait valeur yeeg tradition yi c'est quelque chose d'unifié en fait comme si nga dem au nord maanaam xam nga mooy c'est valable te Sénégal maanaam valeurs yeeg tradition yi c'est pas loo xamante ne ñëpp fépp la nekk en fait même même valeurs yi même tradition est-ce que tu vois dina am mm. di nga dem foo xamante ne laabaan amu fa par mm. exemple mm. donc mënuñu wax ne waaw suñuy valeur la suñuy kii la dañ koo war a sàmm ak et tout ça et puis sans que am na oustaz li mu wax xam nga on est d'accord que ne on peut pas se baser sur ça il faut il faut que ñu laajte comment en fait ça se fait que ne honneur ak dignité d'une famille de toute la famille dépendre seulement de ce qu'il a entre les jambes d'une femme mmh. comment ça se fait en fait société boobu noonu nan la mën a doxee maanaam yow problème yi am ci dëkk bi yëpp on est d'accord que ne am na lu bari loo xamante ne moo ngi xew ci dëkk bi fii nii ñuy suturaal nit ñi mais quand il s'agit de femmes di di des femmes su fekkee ne wàllu jigéen ñi la ak wàllu seen seen yaram et tout ça dañuy teg ay système de contrôle yu bari mm-hmm. alors que ne virginité encore une fois je le amul benn fondement scientifique diine nee nañ nee nañ dàq nañ Laval mais scientifiquement en fait virginité amul fondement c'est-à-dire que virginité construction la loo xamante ne société bi ni mu organiser woo de façon patriarcale nga xamante ne sànq persone ni muy waxee nga xamante ne maanaam affaire bi sac la pour góor ñi mm-hmm. plus mm-hmm. que pour jigéen ñi sax mm-hmm. parce que y une question de virilité aussi derrière maanaam ñoom ñooy wane seen góor am na fan yi benn oustaz boo xam ne nee na da doon wax góor ñi en fait que nañu def doucement avec seen seen seen jabar yi seen seen nuit de noces seen première nuit de noces parce que am na ay première nuit de noces yu bëri yoo xamante ne viol la en fait parce que dañ lay forcer à pour nga am relation sexuelle alors que parfois tu ne saignes même pas en fait tu n'es pas obligé de saigner le le premier jour boo amee relation sexuelle loolu dafa lay topp en fait ñu ne waaw moom kat da doon taxawaalu et tout ça donc pour man il faut juste qu'on se demande encore une fois féministes yi du ñu ay extraterrestre ñun fii lañ dëkk fii lañ juddoo mais dañuy questionner société bi li nga xamante ne moom la teg jigéen te tegu ko góor maanaam contrôle bi su ëppee ci yaramu jigéen ak jigéen nu mu war a dundee maanaam ñu ne dignité jigéen ak honneuru jigéen en fait ci lii la dépendre alors que góor ñi kenn yaru leen góoru Sénégal dañ leen bàyyi si li leen neex ñoo ngi dóor seen jabar ñoo ngi violé ñoo ngi def lu leen neex. kenn waxu leen dara ñi ko sañ a wax. non je je parle des hommes quand je parle moi je parle des hommes de façon générale. ku ci gis sa bopp ça dire que yaa ci gis sa bopp. je dis pas dire les hommes ça veut encore une fois ce que l'on voit mooy que ne pression bi ak contrôle bi dafa ëpp. ci jigéen ñi donc c'est pas équilibré et du moment où c'est pas équilibré. en fait mm. dafay loolu moom mooy indi ay violence mm. maanaam. man bàjjan ngoone bi ma waxeek moom mu ne ma dem na ay médiation ci ay sëy parce que kooku dañ koo fase parce que dañ ko def fekk fekk ma si yow dara mm-hmm. mais mami loolu ban société la ñu nekk en fait mm-hmm. maanaam su fekkee ne dañ ne dañuy suturaalante suturaal lañ nit ci lu gën a garaaw loolu mais mm-hmm. pourquoi ñu tànn ne nit ki suñu fekkul ndaw ci moom kooku dafa bon wala kooku dafa taxawaal wala kooku alors que am na ñu ko judduwaalewul mhm. am na ñu ko ñàkk ci anam yoo xamante ne mhm. defuñu dara mhm. donc pour man nit ki aussi tamit dañoo war a xool yeneen valeur yoo xamante ne moom moo ko moom moo koy gën a gën a euh, may jëmm en fait moom moo koy gën a jox gëdd aussi ci société bi mu noo ñu bañ ko réduire rek en fait ci ci loolu noonu d'accord c'est c'est important mooy comme fàttali ne